mais tamit dañuy dugg rek duggaat ci problème sëy yi temps yi sëy yi am na problème sama sama jëkkër lii sama jëkkër la nan nga ko gisee. waaw dañoo jiiñ lépp rab. Mhm. am na lu rab def am na lu seytaane def. Mhm. waaye am na loo xam ne feebar la. feebar bi moo dal góor ñi. lan mooy feebar bi. ñàkk ngóora yi. Hmm? ndax dañuy dem fekk sëriñ soo xamante ne ni amul ngóora ñu naan ko fajal ma sama ngóora. sëriñ ku amul ngóora nu mu lay fajalee ngóora. non waxal. ko ñu ci ku abul mm-hmm. nan la lay fajalee ngóora. ko ñu ci bari euh, ci ku ndoxum siti ba yàqu nan la lay fajalee ndoxum siti sëriñ boo dem fekk ko bopp ba karaas muy wokk fu nekkam. Mm-hmm. nga naan ko fajal ma ndoxum siti waaw wala déet. Mm-hmm. ngóora yi. soxna yi daa ko faj. wàllum yokk bi moom nu mu demee. yokk bi mooy ñi nga xam dañoo rasule am na ñoo xam koo judduwaale am na ñoo am jabar am ñoo xam ne gel sax ñemewuñ koo am. Mm. ndax ba nu juddoo ba léegi seen bagage dafa tuuti am ñoo xam dañoo dem ba mu yàgg mu dab leen. ñu am gelu rab. ban kéemtaan nga ciy def. kéemtaan bi mooy sama produit yi foo mënti nekk da lay indiwaat une centimètre laa lay fekk wala demi centimètre indi la trois centimètres xanaa soxna ay daa social mën taa weesu lii. Mhm. góor gu toog di xool sa jabar mënaloo ko dara ñëpp yi ngénte ngénte woo. soxna Ayda fexe ba nga ngénte da ngay mesure am ñoo xam ne dañuy jël teg benn mesure ne ñii lay toll soxna Ayda am na ñoo xam ne dañ daan dugal fira doom am na góor ñoo xam ne dañ daan dugal di denc seen i bag pour sol mu am jëmm nekkate dañuy protéger wu comme ni xale jigéen yi di def bu maa mënoon a doon xam naa ne maa raw hôpitalu CTO la muy rocc ci dam damm su ma doon baraakee li ma yor ciy firi doom nga joom mi dangay ngay gis ku ñëw jiital Hippolyte lay dagg jiital tubéyam ba mu fees del sol jiinam mu am jëmm ndax yëfi kat boo amul dara. Hmm. boo solee jin day surux moo xale bu jigéen bu tuutee bu sol si payam. affaire dafa am ay secret de. danaa daal hmm. ku mun ta faj boppam bu dee danaa la faj. Hmm. waxula lu am yenn saa nga gis koo xam ni man nag du ma étranger jógewuma ci dëkkub jàmbur. ñëw ci dëkk bi wutum néeg. déedéet damaa jóge fii soriwul dara. di góor góorgóorlu di sëy di muñ. di wut benn néeg ak ñaari néeg di seetee xoltu gerte jamonoy huit mille ak baaba maal ba ndimbalu suñu borom dab ma ma toog suñu borom ma ma dimbali dama koo judduwaale sama yëfi kër maam fekk si ma ñi xam ta xam sama kër maam yi ma leen limal nanu xool ku ne mën na faa jóge waaye dama koo teg ndimbalu suñu borom donc en direct. mais mais est-ce que mën nañoo xam ah, maanaam génération bi ban moo ci ëpp. dix huit ans. dix huit ans ba soixante ans. mais 18 ans xanaa ñooñ dañuy foowee seen bopp. mooy ñuy foowee seen bopp am na xale yoo xamante ni seen bagage yi day xasan ñuy foo seen bopp di foo ci seen bagage muy tuuru wala ñuy desee du desee dara bu ñu tollee ci am soxna wala ñu toll ci am leneen dañuy jékki-jékki fi mu ne nii feebaru bolotement ma dimbali gaañi. dimbali leen waaw weer yi. Mhm. la ma waxoon 2020 moo dikkaat de feebaru bolotement janq ji di ngelawal meer yi ngelawal boo toogee ak safar di ngelawal xale yu góor yi seen kanam yi di xasan ñuy wokk muy neex. duñu xam lan la yooyu yëpp ay xeeti feebar la ak tànk yi metti jàpp óom hmm. bët yuy metti jàpp bopp loos ndigg luy metti hmm. ndigg luy metti muy góor muy jigéen ñépp a ko am waaye sama garab gi lu ne la ci mën bolotement hmm. bolotement boo naanee garab yi fibrom seet si soxna soxna Aida li mu yor du jeex soxna Aida nag daa deful li seetkat yi di def di woote ay promo di fay 10 000 di wane ay bagage sama ka uti kiraami kiraama yii moo rey gaa yi ba nu dee ku fi nangu ñu lay wan ay kiraama kiraama borom da koy denc. Mhm. gis naa fi ki Demba Ndiaye ñuy faj ndaw soosu. waaw Fadio Mbaye mhm. génn ay bagage génn ay awraam def ko tefin boo xam ne loolu jar na faj mën na loolu. nan nga gisee loolu. dafa ñaaw dafa salte ku mën du def noonu. mais c'est tamit ku ñëw jar mu jël ay caméra ñëw dama ne ki mën du def loolu ndax ki nga faj am na yaay am na papa Wally Seck loxoom a ngi ci. Mhm. boo fajee ba mu wér foo mënti nekk dinañ la ne ku faj kii. Fambaye àdduna bi dañ koo bàyyi xel Fambaye nag li ko dal. Mhm. ba muy doon gone. Mhm. la ko dal. mais est-ce dama ne Fambaye. Mhm. li ko dal. ba gone. la ko dal suufu weenam yi da daan tàng jër. mu dikkee ko ku mel ni am ay saan mu ko def ay tërngët jumba xam bi ci biir mu koy wokk muy xasan poumon yi ci ànd ak moom. li ne ci moom ci luppam yi la nekk moo diis ci moom mooy poids bi. li war a branché wu ci moom muy tuur ndox tuur ndox gu bari. Mhm. ak di génne li mu war a génne loolu la graisse gi nëbb. mais loolu moo yi la lan moo ci pexe dama nekk ku ci jéem a ut bës ba naan damay dem faji ji faambay di yóbbi caméra boo amoon gàcca gu nekk moket gàccay karo ngay am. mais moom taxaw na ne ne mun na ko faj. dama ne. Mhm. ci dem. hôpital am na ci yoon nit ku mën dara am na ci yoon kuy faj ngelawu seytaane am na ci yoon faj gi ma gis. Mhm. laaj poobar bu mokk bii ndaw si bëgg a di baax na baax na ku mën na def soxna ayda dey mhm. ku mu na la mën na laa faj dina la ni mën na ko su ko mënul dina la wax dëkk ba nga war a dem faju ci dëkk bi fii lay génn bu dee mbuur nga war a fajoo wala Tamba dama laan la Tamba wala mbuur mais loolu da nga jàpp ne loolu noonu kenn mënuñ ci dara. lan comme soxna toog ñuy faj mën nañ ci dara. mën nañ ci dara. Mhm. mais dafa am lu koy fajee ndax nitu kersa la faj bi du publiquement. maanaam faj bi. Mhm. du publiquement du publiquement caméra yi ñëw. Mhm. yow nga ma jox la pot bool bi di diw. kaa ma def yow yaay diwkat bi yow yow yaa xam lii diw kon yow yaa jël en yow. dama lay wax lu leer naka sénégalais maa engagement maa lay faj yow waa caméraman bii moom lan moo ci yoonam ba caméraman bii war a diw. ba pare war a wala sàmba ma ni ci biti yor potam war a mën a raay. sàmbaay raay wala maay raay yow dangaa sol gant li ngay faj seexlu nga ko. Mhm. wóor na ni am nga loo ciy tiit pour mu wàll wala du la wàll lu ci gant yi wuti da ngay assumer te garanti nga loxo bii moo am barke bi war a faj mbir mi looy gant nañu seet mbir mi fi mu nekk te ba naxante bi. Mhm. fii bu kenn nax kenn soxna Aida nag daa jug ak lu bees tàq ku ko ci moytuwul dalay ñaf <laughs> liggéey bi kenn du ko yàq. Mhm. dañu koo soxla. soxna Aida nag liggéeyam ku ci mer dangaa fekk da ngaa yàqamti. ci mer. ku ci mer. Mhm. daa fekk da ngaa yàqamti te jàpp naa ni kenn merul ndax ñëpp apprécier mhm. ndax seet gi li ñi ma soxla bari nañ. Mhm. te bëgguma kër gi di am rang. may déranger ñi ma dëkkal dama leen di jox àq. kër gi dama fee nekk ak sama njaboot. te aussi it damay sëy. femme laa. benn temps bi sama liggéey moo ko moom benn temps bi sama borom kër a ko moom. listixaar nag diggéewuma kook kenn ku la ne maa ngi lay listixaaral listixaaralu la day lekk ay ginaaram moccaat ay yaxam yor crédit am yow ngay nelaw di xaar say résultat doo gis dara fekk jeeg baa nga ca ginnaawam di ko di di ko bës bu yeewoo fudd naajee yeewu booboo nag moo gën a doy waar maa ngi lay listixaara mm. nga woote 10 ñu ne la ci kanam tuuti damaa ne ci kurus gi newuñ ci kurus gi ña ngi ca seeni jeeg am na ñu mën de waaye ak a bëri saay-saay <laughs> ñoom ñëpp a jeexal maniiru ku jeexal maniiru nan la la mën a doolee maniiru ñoom ñëpp waa bari na ci bari na ci ñoo ñi ma gis fii ñuy talaxu ñëpp ay saay-saay kese ci ne ay bandi rek lañu hmm. jabari jàmbur yépp vidé nañ leen jabaru jàmbur mhm. jeex nañ lan ngay wax ñooñu nañu réglé te bàyyi seen pom koo ci gis tey mu sol vaal bu subaa jasneer lay sol yor ay gàddu kooram sécurité bi man am naa ñaari sécurité waaye guddi la ñuy génn samay raq lan man am naa sécurité waaye guddi guddi ñoo may topp sax waaye man bëgguma ku ma sécuriser man Serigne Sall doy na ma ci sécuriser ki may sécuriser ki may sécuriser mat na ma sécurité li ma bëgg a wax nag ci réew mi ala kulli xaal dinaa ko wax nañu ba seen pomi te jàngi man nag don kenn jàngalu ma samay kër maam daa fees dellu su ma desoon sama bopp bi rek ma toj réew mi hmm? li nekk ci sama bopp bi sama këri maam hmm? su ma ko yoroon kese toj réew mi réew mi mën naa koo toj garaw bi sonk xeex bii ñëw man maa génn man soxna Aida ni leen réew mi dina toj hmm. réew maa ngi ñëw te lépp a ci internet bi nañ dem vaar nañ dem vaar nañ dem vaar vaar baa ngi nii ubbeeku nañ dem vaar lépp a ngi fi am na date am na heure soxna Aida balaa kenn jëflanteek moom na dem vaar mhm. réew mi dama fee liggéey de dama fee calmer lu bari bi réew mi naree tàkk soxna Aida dafa génn wàcc ci géej gi def li mu war a def teg ci nag ndimbalug sëriñ mu taxaa mu baax mi sëriñ mu taxaa mu baax mi nga xam ne bu lay noppiloo da lay booleeg lu la noppiloo bu lay waxloo da lay booleeg lu la waxloo mhm. jëfal nit ñu ci social. père de la nation moom la. lan l'homme de l'année. l'homme de l'année. l'homme de l'année l'année l'année la dañ koo cof dañ ko waroon di xëcc. naan ko lan. l'homme de l'année l'année l'année ay l'homme de l'année yu bari la. lom lane bii la lom l'année ba ñëwagul la ndax li mu liggéey fii ba réew mi dem dootuñu ko fàtte jëfinu sëriñ Saliou rek la fi jëfee. mu ko bëgg nag sëriñ Mountakha xolo borom jàmm ji woo nit ñi ci péex booba soxna Ayda bi mu wàcc ci géej gi benn seetkat daa génn bu soxna Ayda wax Ayda soxna Ayda ca jaari saw laa génn leen réew mi dafa ànd ak réewum balaa réewum jigéen la li xeeñ 2020 2021 lay xasaw 2021 man maa waxoon loolu le 4 janvier mi ngi sans limite que mënoo jàpp ne yow chaque mois de janvier ngay ngay. chaque mois de janvier laay toj ñoom balaa kenn toj ndax boobu kenn ku ne mi ngi xaar soxna Aida ci laay toj teg sama bilan lii rek a tax nag may wax. Mhm. ndax dañoo gaaw ci profito te dañoo am staff. staff bu dëgër la ñu am ndax dañuy fay staff. dañuy fay te yow fayoo kenn. man fayuma droit d'auteur fayuma kenn ndax man li may liggéey ci askan wi lay duggaat. man suba liggéey damay seet ñi am ordonnance ma jënd gis nañ loolu. damay seet ñi feebar ma faj leen. Mhm. damay seet ñi amul ceeb ma jox leen ceeb. damay jënd surtout maag sarax yi nag da ngay yónnee say million ñu naan nag bi ma la génnal ak bëy bi ma la jëndal ak. Mhm. gëléem gi ma la jëndal benn gëlëm lañuy jël photo ko fukki photo kenn ko ne ñu envoyé la ko te encaissé ku ne. waaw da ngay génneel Samba wooteel ne sàmba yaa moom sarax bi sàmba sa sarax baa ngi nga saraxu sàmba bi moom mënoo ko jox àdduudu. Mhm. nañuy def loolu yéen laay yee yéen sénégalais yi damaa da a sonn waa diaspora da ngay liggéey say junni yow doo tëdd ak jeeg bu rafet yow doo am oto bu rafet nga jox leen ñoom ñu am oto bu rafet am jeeg bu rafet c'est fini soxnaay ne da leen ko yombalal ku amul xaalis sax ma faj la ku amul xaalis sax ma jàppale la te yàlla tax ndax yàllaa ma jox li ma yor loolu rafet na nee na moom ku amul sax mu jàppale la kon yaa xanaan ko sénégalais yee ma bëgg waaw sénégalais yi ma waaye bëgg ma bëgg bëgg ma leen bëgg ko raw wóolu gin ma wóolu Mm-hmm. nguur gi mm-hmm. réew mi mm-hmm. yeneen dëkki jàmbur sax damay def état jàmbur waaye kuy wàll yaan sa dëkk daa tëggul Sénégal laa gën a bëgg mu am jàmm yàlla na fi jàmm wàcc kuy góor na nga génne ñaari kilo ceeb kuy góor kuy jigéen na nga génne juróom ñaari kilo mburu waxaat ko gars kuy xale bu góor na nga génne juróom ñaari galaas bi su altine altine nañ ko saraxe ci réew mi juróom ñaari galaas kuy góor gu ndaw toll ci am jabar amagoo doom ak am benn doom. Mhm. dugg trente ba dugg vingt ans. Mhm. classe googu yëpp nañ génne ñett juróom-ñaari galaas. juróom ñu génne ko bisu altine. saraxe ko ca koñ ba ñu dëkk. dégg mhm. kuy góor te yor jabar. yor njaboot nekk mag. mu kàllaf jiite kër. samp njël. génneel ñaari kilo ceeb. kuy jigéen di yaay. mbaa ngay mag mbaa dese sa njabootu yaay. génneel juróom-ñaari kilo mburu soxna Aida ko baaxee Sénégalais yi. ndeysaan yaakaar naa ne loolu rafet na macha allah. lii sama sama sama page Instagram nag. soxnaam mm. Aida mu Serigne Saliou wa fa nekk. Mm. fa waxee sarax yi sénégalais yi war a jël ñii xaar soxna ay Aida ci internet bi. Mm. YouTube Instagram. TikTok hmm. fépp soxna Aida mu sëriñ Saliou fa ne ku ko tàppe di nga ma fa gis hmm, ngeen abone nag hmm. te xam ne falaay waxee yenn yi ma leen bëgg a baaxee mooy yu gàtt yi nga xam ne dama bëgg ngeen génne ay sarax fu réew mi toll bu ma fekkee may nelaw sax su ma ko gisee kay wax leen ndax ñu ne ci jàmm ñu bañ leen a naxati dama fee nekk pour sénégalais yépp muy xale bi am un an ba deux ans ba soixante ans ba quatre-vingts ans soxna Aida pour yéen rek la wasalaam macha allah loolu rafet na comme soxna Adja ni ma koy waxee rek képp ku bëgg ci ñëw ci moom di nga gis xam-xam di nga gis dëgg gi ak tamit di nga gis ni bëggeel bu mu am ci ah, ci sénégalais yi lu dul def rek lu dul jox la sa dernier mot parce que gis nañ ne sonn nga ak ak ak ak xat-xat gi am na ñu nekk ci biti di la xaar la mooy sa dernier mot. bëgg sénégalais yi bëgg jàmm am fi. Mhm. te dinañ ko jaayante ba jàmm am fi. Mhm. la ma waxoon rek coowal jigéen a xew ci réew mi mille 2021 ak coowal jigéen nanu yàlla musal sàmmal ñu làqal ñu téyal ñu sunu njaboot te kenn ku nekk kenn ku nekk na nga yéene sa moroom jàmm te xam ni jàmm rek ci la xaj di ñaan nag Wally Seck bisam bii mu dëgmal bu munta ñàkk ba munta ñàkk yàlla na mel ni lem ak suukar bu mënee ñàkk ba mën a ñàkk yàlla na mel ni zirik ak galaas meew mu am galaas ci barke Seexul Xaddim na ko sénégalais yëpp pare nag te dem ca taxawu ko jëmmal ko waaw man sax soxna Ayda dinaa dem musumaa dem ci loolu ci lu sëriñ saaliw rek laay dem mhm. ak jànkatu xasaay di mhm. waaye man sax dinaa dem